sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa tabi'in wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokki jullit yi ñu ngi jullit di nuyoo bu sel di ñaan yàlla suñu boroom subhanahu tabaraka wa sunuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njéggalam ñu dellu siwaat rek ci sunu jotaay ak yóbbulu ndaw ñi comme niñ ko baaxoo defee muy jotaayu fàttali di jotaayu xamle ñu nekkoon nag doon jàngale téere bii ñuy wax al na fiis muy téere bu am solo suñu bàyyee xel nag ci suñu jataay bii mujj ci njàngaleem sëriñ bi mu ngi yamoon ci di wax mu kalaf jullit bi nga xam te ni li war a njëkk ci moom mu xam lu ko mooy mu xam nan lañuy gëmee yàlla waaye mu xam tamit nan lay na yéwénale ay jëfam yi ko yàlla sant jëf yooyu nag bokkoon nañ ci limoon yu mel ni woor yu mel ni laab yu mel ni julli ak aji ak génne asaka bu nekk mu xam lu ko ba xam naka la ko suñu borom bëggee mu jëfee ko noonu kon tey mi ngi tàmbali di wax ne summa alayhi topp war na ko moom mu kalaf di ab jullit an yu xaafisa ci mu wattonteeg mooy mu sàmmante ala xuduudi rabbil arsi ci daytalu boroom xaras jàlla màgg na moom yàlla wa xalaata kawe wa yaqif ak muy taxaw hinda amrihi fa ndigalu yàlla ya wa nax yi ak tere ya wa an yatuuba ak muy tuub kulla aynin ci bépp jamono muxtarif muy aji tudd bàkkaar li rabbihi ñeel yàlla muy boroomam subhaanahu solil naa ko lépp lu yellawut ci moom min qabli ay yakuuna ci njëkk muy nekk saaxitan di mere alayhi ci moom fi zaman ci jamono kon sëriñ bi wax na war na ci bépp mu kallaf képp koo xam ne ak jullit la di mu kallaf mu sàmmante ak ndénkaaneel yàlla ñi nga xam te ni moo ko bind ay ndénkaaneem mu sàmmante ak moom waaye tamit mu wattandi ko ay tereem ba lépp loo xam te ni suñu boom daf koy tere rek du ko ca fekk waaye lépp lu suñu boom di digle bu gesoo xool ko fekk mu nekk ci ndigal loole ndax nit kii kat suñ boom daf ko bind am lum ko digal am yum ko tere am na loo xam te dafa war ci moom am na yoo xam te ni warut ci moom mu tracel ko ñaari yoon mu yoon wu jub di siraatal mustaqim digal ko mu jaar ci tracé weneen yoon tere ko mu jaar ci mooy yoonu jub yoonu mooy yàlla mooy yoonu dëngte kon nag nit ki war naa sàmmante ak ndigalu yàlla waaye mu wattandi ay tereem bokk na ci li doomu bi war a njëkk a def muy tuub ay bàkkaaram farataal ci boppam di jéggalu yàlla boroomam ci jamono ju nekk ndax doomu aadama bi kat mën mënut a ñàkk di def ay bàkkaar waaye na fexe ba bu defee bàkkaar rek mu tuub ko defee bàkkaar mu tuub ko te yàlla rek tax waaye tuub googu it bu mu ko yeexe may gaawantu jëm ci tuub balaa suñ borom di ko mere ndax di def ay bàkkaar rek di dem te doo tuub doo jéggalu yàlla bokk na ci waral merum yàlla te yàlla kat ak meram bu amee ci jaam dina dem ba nga xam te ni mën naa ñuulal ab xolam mu yor xol bu tilim boo xamee ne xelam sax dootul nekkati ci tuub jëm ci yàlla kon day dox rek di wéy te loolu yàlla nañ ci yàlla musal mu ne wa min surutiha bokk na ci ay sartam moom tuub nadaamatun mooy rëccu alaamaa ci la nga xam te ni faatahu faatoon na ko mooy raw na ko minal mahaasi ci ay moy mus jalaa lum man di doon wan niyatun ak yéene fii ma baxi ci la des minal umur ci ak dundam xaadama xaaw di hi ñàkka delloo bi kulli ma ci lépp loo xam te ni yadur dana wa an yakuuna ak muy nekk taarikal xasiyaani di aji bàyyi mooy in nekk na xasiyaan di aji mooy yàlla bilaa tawaani ci lu dul yeexe mu nekkat bokk na ci sartu tuub sagam wax na la ne na ngay sàmmonteeg ndigal yàlla yi te bàyyi tere yi waaye tamit na ngay tuub say bàkkaar kon daf laa bëgg a wax lan mooy tuub ak tuub lan mooy ay sartam ngir boo bëggee tuub tuub boo xam te ni suñu borom dina la ci jéggal say bàkkaar mu ne la bokk na ci sarti tuub yooyu mooy nga rëccu nit ki kat bàkkaar bi mu def nga xam ne def na ko pare da war a rëccu buy tuub mu rëccu bàkkaar boobu mu def waaye ñaareel ba it mooy mu yéene ci bàkkaar boobu mu def ne dootu ci dellooti mukk waaye tamit dootu dellooti ci def beneen bàkkaar bu dul bàkkaar boobu ñetteel ba mooy bu fekkee ne ba muy tuub da def lu neexut yàlla na ko bàyyi ci sansa na bàyyi mooy yàlla ga ci sansa na bàyyi loolu mu doon def te neexul yàlla kon ñett yooyu mooy saati tuub mooy na rëccu bàkkaar bi waaye ne yéene ne dootu defati bàkkaar bi waaye dootu defati beneen bàkkaar waaye tamit lépp lu mu ko fekk mu ko doon def te fekk loolee neexut yàlla na ko bàyyi kon ñett yooyu faw mu dajee ci tuub waaye nag mu teg ci ne wala la hu déddi ko ñeel taaxirun ak yeexe aw tasabburu wala muñandiku li tawbatin ñeel ak tuub wala yaquulu te déet muy wax asbiru danaa muñ xata hadaani ba mu jubal ma saahibul xufraani boroom jéggal ga te mooy yàlla fa inna saa naka looleekat wala naka liikat alaamatul xislaani màndargam gécc la maa shaxaawati ànd ak texeedi waray nul xal bi ak ñuul ko xol innii naka man amuusu danaa muslu min huma ci ñoom ñaar bi rabbi ci sama borom mu ne bokk na ci tamit ba tey nit ki na nekk koo xam nii bum topp àdduna rekk bañ a tuub ay bàkkaar te bum bokk ci nit ñi nga xam te ni dañuy kat naan naa bàyyi ba ci kanam ma door a jéggalu yàlla tuub bàyyi lépp lu mu doon def ci ak mooy nee bul bokk ci nit bul bokk ci ñi nga xam te ni kat dañuy wax naan yàlla kat mooy jubale te ku te kum jubal rek mu jub kon naa toog ba yàlla jubal ma déedéet bul bokk ci ñooñu ndax loolu kat képp ku koy def nga xam ne yaa ngi ci pexey seytaane ndax seytaane mooy def ci xolub nit ki buy def loo xam te yàlla mun naa ko ah jëfal rek ba kanam ba ci kanam ba nga dem ba nga nii yaa ngi jëm mag nga door a jégal sa borom bañ cee delluwaat kon nag nit ki fu mu toll dafa war di tuub ci yàlla bañ koo yeexe donte sax yàlla da koo natt ba lim tuuboon ci mooy mu delluwaat ci na delluwaat tuubaat bañ a naagu ci njëgalu yàlla na delluwaat rek te tuubaat kon nit ki war na di tuub ay baakaaram te bañ koo yeexe bañ di wax naan naa toog rek yàlla ay jubal te yàlla kum jubal mu jub nee na bokk ci ñooñu kat loolu dafay wane ne màndargam géej rek mooy koo xam te ni amul tawféexu yàlla te amul ndimbalug yàlla te bokk na ci it yi waral ak texee di ak xol bu ñuul mooy yéex tuub naan naa bàyyi ba bis nangam mu tuub naa bàyyi ba jamono nangam mu tuub te xamoo ba xam yàlla dina la fi bàyyi ba boobu wala déet kon loolu pexe seytaane la muy ñaan nag yàlla nañ suñ boom musal ci ñaar yooyee ndax ñaar yooyu li muy waral mooy ñàkk a texe ak xol bu ñuul yàlla nañ ci yàlla musal kon nit ki daal war na fu toll muy tuub ay bàkkaaram te buy tuub ay bàkkaaram bu dee bàkkaar ju mu jëf la walla bàkkaar ju lu mu wax la na jaar ca bàkkaar ba tudd ko xam ne moo tooñ boppam te jégalu ko yàlla te na xam ne bàkkaar boobeekat na yéene bañ cee delluwaat mukk te bu fekkee mu nekkoon ci ay mooy yàlla na bàyyi lépp lum doon mooy yàlla te mu nekk koo xam te ni day gaaw jëm ci tuub te bañ koo yeexe ndax yeexal tuubkat seytaane rek moo koy war te bokk na ci yi waral xol bu ñuul ak ñàkk a mu ne waxaa kaza niki noonu raddul mazalimi delloo tooñaange ya jamihan mboolem seen yu xaddu def na ko lim min cuutiha ci ay sartam moom tuub xendal mu tiix fa aji topp ja li annahu naka moom fardun faratala fa man tarakahu ku ko bàyyi mu xafifan ngir woyofal faqad asa mooy na malikahu boroomam ba mooy tamit bokk na ji sarti tuub muy sartub ñeenteel kon ba tey ñeenteel boobu mooy delloo tooñaange ya mooy bu fekkee dangaa tooñ sa moroom doomu aadama jël alalam wala nga wax ko loo ko wax kon nag bokk na ci sarti tuub nga delloo tooñaange yooyee ndax bu dee diggante nit ki ak yàlla mi boromam de yàlla moom ku am yërmande la mën naa baale bàkkaar bu ne waaye nag bu dee diggante nit ki ak moroom nitam moo jaral gën a wataliku moo tax kon sëriñ bi wax ne ginnaaw bu tuub ci yàlla matee na nga bàyyi xel ne bokk na ci sart tuub ba tey nga delloo tooñaange ya ginnaaw da ngaa tooñ sa moroom jullit nga dem jéggalu ji ko delloo ko alal jëm yoroon nga yoroon te tooñ delloo ko ko kon nag loolu bokk na ci sart tuub mu ne nag koo xam te ni oyofal nga ko maanaam jàpp nga moom sa diggante ak sa moroomu doomu aadama moom du dara ba doo tuub jëm ci loolee doo tuub ci delloo ko alalam wala loo ko tooñaan nga woyofal ko nee boo ko woyofalee nag di nga ko rëcc ci ëllëg ndax kat yàlla ku maanu la te ëllëg amal xiyaam doomu aadama yi ku nekk loo yàlla suñu maam doomu aadama di ko fay kon nag boo ba yegg foofu nag defoo ko tuuboo delloo ah, ko rëcc de tax mu ne képp koo xam ne koo woyofal mooy nga yàlla. loolu bokk na ci sartu tur bi kon xam naa dañuy yemale fii sunu bindu tey incha allah rabbi buntu tur bi su defee sunu jotaay bii di ñëwaat incha allah mi ngi waxaat ci tooñaange ñaata xaaj yim doon mooy tooñ gi nit kii tooñ doomu aadama bi ak ni ñuy fexe ba delloo ko lam ko tooñal loolu lépp nañ ci ñëw incha allah rabbi kon ñu ngi wàcc kàddu yi di ñaan su moom defal ñu jàmm ak tawféex di siyaare mbokk yi nga xam te ne dañuy jotaay bi yëpp waa Sénégal ak ñeneen ñi nekkul senegal mooy ñu nekk bitim réew ñëpp ñu ngi leen di sant ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp lu fi jub ñu xam ne ci yàlla lu fi dëng ñu xam ne suñu jëmm yu xeeb yii la ñu wàcc kàddu yi di wax in uridu illa al islaaha mastata'tu ma tawfiqiya illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi